mbirum góor jigéen bu yoboo ñu teg ko ci suuf gannaaw ba nga xamante ne rek ab visite bu Jean-Luc Mélenchon doon amal ah, fii ci diwaanu Sénégal nga xam ne jiitu réew bi moo ko invité woon mbir ma nag euh, teg nañ ko ci suuf ndax ci wàllub diplomatie Ousmane Sonko nag bu ñu sukkandikoo ci ëttu yëglekaay bi di Walf Fadjri quotidien nee na Ousmane Sonko veut une nouvelle France Afrique ci ay a yeneen yi ni mel ba tax nag Walf Fadjri quotidien moom la daal di wax le quotidien moom itamit ñëw ci mélangeon des genres mu ne nag cette preuve d'amour devrait être accordée à tous les députés insoumis tenus par des propos de Ousmane Sonko sous les applaudissement euh, des euh, étudiants ba tax nag les échos ñëw ne euh, confirmation ci li nga xamante ne avec Jean-Luc Ousmane Sonko la révolte et la revanche ba tax nag mbir ma euh, gis nañ ko nañ ko tegee ci euh, suuf mooy coowal euh, góor jigéen ci wàllub diffamation kile di Cheikh Niass ak journaliste bi di Pape Sané Abdoulaye Sylla borom Ecotra daal di leen di yóbbu fa mbaxana doone benn ab plainte l'observateur ñëw ci jomaay président nomination yu bëri ndax lépp dafa bokk ci li nga xamante ne rek moom mooy partage euh, du gâteau bés bi les tamit ñëw ci diversance radicale entre Sonko et Mélenchon sur les sujets de société alliance contre nature loolu ko daal di tuddee ndax mal euh, ki di Mélenchon dafa constaté dafa daal di saytu rek wala dafa gis ni am na ay désaccords yoo xamante ne rek euh, yu radicaux la gis nañ ko waaye nag peut-être un jour vous voterez l'homosexualité muy ay kàddu yu Jean-Luc Mélenchon mooy risque d'être le procès à Cassius Belli waaye Ousmane Sonko mu ne personne ne m'empêchera de débarquer à Paris avec mes deux dames de Sonko nag daal dinay dikkaat ci coowal li nga xamante ne dañ doon wax ne Euh, dafa tas ak ñaareelam bi ba tax nag démb confirmé na ne moom mi euh, mësul tas ak ñaareelam bi turbine yëglekaay nee na Sonko nag ma ngay rassuré euh, ci wàllu polygamie ak LGBT jëm nee na nag na nga déclaré que l'homosexualité et tolérée au Sénégal li nga xamante ne moom la source a ñëw ci li nga xamante ne rek moom mooy l'ex DG bu SAPCO Souleymane Ndiaye moom mi la dañ koy menacé de mort ba tax nag mu daal di def ab plainte contre X ndax otom bi mu gaari ci këram dafa fekk ñu daal di eh, tijji eh, ñu daal di koy eh, dindi ba tax nag moom mile le léeg daal la daal di xamle Sud Quotidien ñëw ci plan di ci plan décennal ci gestion bu inondation yi Ousmane Sonko nee na danañ auditer lu toll ci sept cent dix-sept milliards ci li nga xamante ne rek moom moo euh, jëm maanaam juróomi téeméeri milliards yu teg fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne rek danañ ko daal di def waaye nag ab conseil interministériel euh, danañ ko daal di amal ngir jëmal li nga xamante ne mooy wàllub euh, inondation yi nga xamante ne rek am na lu ci lëntëm moom mi la nee na dina ko daal di xool la dépêche moom la ñuy ñëw ci li nga xamante ne rek moom mooy Thierno Bocoum Thierno Bocoum nag amul lu fa desal ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yu bees ba tax mu ne Thierno Bocoum alert les nouvelles autorité mu ne attention à ne pas embourrer dans la zone de confort de l'état de grâce ba tax nag nee na fexe leen ba bu leen dugg ci confort euh, ba fàtte askan wi euh, révélation moom dafa ñëw ci euh, Ousmane Sonko ak tenue traditionnelle ba nee l'homosexualité ne sera pas légalisée au Sénégal étudiants yu campus yu Diourbel nag ñoom ña ngay sàkku ñu daal di defaraat lekk ba waaye tamit euh, duwaan nag daal nay jàppaat ay billets lu toll ci juróom-ñaari milliards ci suñu koppar Cheikh Omar Anne moom nag nee na dafa bëgg a conserver fiefam foofee ca njum jëm lépp loo xamante ni ci wàllu politique rek ba nga xam ne euh, kenn du ko fa gagné tribunal bu Dakar ñaari femme de ménage yi nga xamante ne nag dañoo dañoo sàccoon douze millions euh, ci seen patron ak euh, li nga xamante ne rek moom moo leen boole moo neen nañ fay ba pare tentative d'assassinat ab chauffeur moo assommé benn boutiquier euh, qui couchait avec son épouse maanaam euh, benn boutiquier la daal di assommé waaye tamit dafa njort na danoon euh, tëdd ak jabaram di seq loo xamante ne rek neexu ko ba tax nag mu daal di koy def jëf ji ni mel waaye tamit dañuy wax li nga xamante ne rek moom moo le soleil le soleil moom nee na conseil interministériel la prévention de la gestion inondation ba tax nag ay vingt-deux mesures daal nañ ko fay bëgg euh, jël jëm ci lépp loo xamante ne rek dafa nekk loo xam ne dañ koy daal di euh, auditer waaye tamit dañ koy daal di caytu ba tax nag euh, transport en commun les cris de détresse des premières victimes du BRT on ne crée un projet en tuant un secteur porteur de revenus mu ne les clients bout taxi et clando mu ne le de nuit pour compenser des perte ba tax nag ña nga xamante ne rek ñoom ñooy clando yaag taxi yaag cak-cak ya mu ne nag mbir ma daal gis ne ko eh, ba tax nag eh, gis nañ ne daal la xew ci diwaanu Mbuur doon lu doy waar moom la ñuy jeexalee mu ne un colocataire dafa rendre impuissant après avoir couché avec sa femme moom nag eh, ab colocataire la daal di Euh, def mbir bi ni mel ndax dafa njot ne dafa tëdd jabaram l'observateur <laughs> bés bi le jour moom la daal di xamle mu nekk ab mbir bu doy waat boo xamante ne rek nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu